professeur Ousmane Beye euh, maa ngi lay nuyu da ngay jàngale xam-xam bu jëm ci wàllu économie di science économique alors ñu bëgg waxtaan ak yow ci euh, jokkalante bi dox diggante Sénégal ak États-Unis euh, sabab bi di secrétaire d'État américain bi fi ñëw di Mike Pompeo alors tey bu ñu doon xayma jëflante gi ci wàllu koom-koom diggante Sénégal ak Amérique lan la ñu ciy mën a jàpp diggante bi moom dañ ko war a rafetlu parce que diggante bi yàgg na Euh, toll na presque juróom-benn fukki at euh, ñu fàttali rek ne 1961 euh, bi ñu amee indépendance 1960 ci boo mu am benn at ci la ñu commencé suñu relation yooyu muy diggante président John Kennedy ak diggante président Léopold Sédar Senghor boobu ba léegi suñu diggante américain wax dëgg yàlla je crois que amul benn réero wa ñu ngi dem ñuy dimbali la bu baax a baax parce que foog ñu fàttali ne daal américains yi ñoom suñu digganteeg ñoom bu ñuy jëflante affaire dimbalante affaire xaalis ñoom du ñu lebal ñoom dañuy may dañuy may te bu ñuy may tamit bu ñu ñëw euh, dañu koy jox ñi nga xam ne waa Sénégal lañu pour ñu liggéey ko duñ ko jox seen wa dëkk sax wala duñu indi seen ay ouvrier ñu ñëw di liggéey euh, comme ñeneen dëkk yi def euh, ku ñu mel ni chinois yi par exemple bu ñëwee dañuy ànd seen ay ouvrier ñu liggéey am sax def nañ ko fii yàgg na ak li euh, ñuy wax les volontaires américains moom la ñuy wax euh, corps de la paix euh, at bu jot wala ñaari at yu nekk dañuy indi ay seen ay xale yu góor xale yu jigéen ñu bàyyi seen seen seen waa bàyyi seen am di jàmm seen lépp seen soxla yëpp ñëw Sénégal dugg ci àll bi dem ci dëkk yi gën a sori toog fo lu mat ay ñaari at wala ñetti at di làkk làkku dëkk ba di di lekk lekku dëkk ba di dund ñoom da leen dimbali ci affaire agriculture ci affaire euh, santé ci affaire yu demee noonu daal yu bare bare di leen dimbali gannaaw loolu tamit euh, ci affaire euh, kaaraange ñu ngi ci dimbali parce que suñu soldat yu bari dañuy dem ci seen école officier yi West Point jàngi ñu bari jàngi nañ fa américains yi ubbi nañu deux dix huit benn centre de formation antiterroriste nga xam ne loolu mooy lëmbale jamono yi fii ci Afrique sow jant ubbi nañ ko Thiès di ci ay soldats Sénégal ay soldats dëkk yi nga xam ne ñoo wër Sénégal Afrique ak yu demee donc loolu je crois que lu ñu war a rafetlu la moo tax sax seen euh, ministre bi toppatoo di jëm bitim réew. ñëw fii ci Sénégal def moom la ñuy wax Mike Pompeo. alors euh, Sénégal tey euh, digganteem ak États-Unis ci wàllu lëkkaloo ndax mun nañu ne kon euh, mi ngi ci gis boppam bu baax a baax bu fekkente ni sax ëppale wu ci li mu ciy gagné. ah waaw mi ci gis boppam baax parce que bu leen fàtte am na lu ñuy wax MCC Millennium Challenge ak Corporation ñoom la ñu defoon lu mat ñetti at ñu dimbali ñu ko ci xaalis boobu jamono sax deux cent. quarante milliards la woon euh, maanaam ñaari téeméer ak euh, juróom-ñett fukk milliards ñu dimbali ko ñu doon ci ay yoon ay ay route ay tali ak ay bare bare ci àll bi d'ailleurs sax yi ñu bari bu ñu nekkee ci dëkku yu mag yi ay Dakar ak yu duñ ko gis mais foog dem ci àll bi pour tekki sa bët ren euh, signé nañu deuxième compact bi maanaam deuxième phase u Millennium Challenge bi maa ngi wax sa 314 milliards sànq ci français mais yaa yaakaar naa si war na ko ëpp xëy na sax mu yàgg 550 milliards. donc loolu xam nga ne wax dëgg yàlla euh, war nañ ci sant ndax du américain du ñëpp nañ koy jox du ñëpp ñu la ñu signal ñu la ñoom carence à compte bi te mi la ñoom bi ñuy signal ñoom sax war nañ ci defar euh, autoroute bu jógee Dakar dem Ndar kooku xam nga suñu projet la woon yàlla def na donc du génn suñu budget américain yi ñoo ko a ma ne ñoom ñoo ko financé wa voilà bi nga leen ñoo ko nar a financé mm-hmm. sans compter aussi am na lu ñuy wax AGOA African Growth Opportunities Act mooy loo xam ne Bill Clinton moo ko indi woon ay accord la yoo xam ne pour pays yi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu yi nga doole pour ñu mën a euh, jot ci marché américain bi di fa indi di fa seen ay produits Sénégal moom bokk na ci loolu boobu ba léegi suñu ñi nga xam ne dañu am entreprise fii homme d'affaires yi ñoo war a góorgóorlu rek euh, di fi jéem a góorgóorlu di dem di jaay foofu nga xam ne dana yokk koom-koomu réew mi dana yokk euh, taxawal ay xëy pour xale yi ay emploi ak yëpp donc kooku war nañ ci góorgóorlu parce que du dëkk yëpp aussi lañ ko signé AGOA du ñëpp lañ ko signé MCC mm-hmm. MCC bi aussi du ñëpp lañ ko signé donc dañ ci sant yàlla di xam ne vraiment euh, ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne nit ñi quand même naw nañu ci yu bëree bëri. Mhm. alors ak visitu Mike Pompeo bi ci Sénégal ndax mun nañu xaar aussi lëkkaloo bi gën a jëm kanam surtout ak pétrole a gaz bi feeñ ci Sénégal. waaw ñoom bi ñoom Mike Pompeo ak délégation dañu ne dañuy xaatim eh, juróomi eh, accord juróomi lëkkaloo ko yooyu ñu def ñoom juróomi accord de partenariat ci secteur santé secteur logement voirie ak yooyu éducation ak affaire courant. ñun courant daf ñu xaw a jaaxal boobu ba léegi bi ñu amee indépendance ba léegi donc euh, yooyu yëpp euh, dana tax ku mel gis boppam sànq maa ngi wax euh, defar autoroute Dakar Ndar Sénélec dina ci gis boppam parce que kooku wax na ak FONSIS ah FONSIS fonds n'est-ce pas je crois d'investissement fonds sénégalais d'investissement stratégique yooyu yëpp donc euh, yoo xam ne yu ñu mat a bàyyi xel la te ñoom bi ñu ñëw sax ren dañu ànd ak ay homme d'affaires yoo xam ne dañu nekk secteur privé. Hmm. parce que ñoom bu njëkk bu ñu daan ñëw rek dañu daan def gouvernement américain gouvernement sénégalais te ñoom seen homme d'affaires yi dañu xarañ am xaalis hmm. vraiment am am xam-xam mën liggéey bi ñu ñëw nag ñoom nee ñu sax dañu bëgg seen homme d'affaires bu ñu ñëwee. Hmm. defaral seen bopp ay investissement wala bu ñu mënee lëkkaloo ak ay homme d'affaires yoo xam ne sénégalais lañu. ñu lëkkaloo ak ñoom a liggéey te te loolu tamit lu baax a baax la comme ñu koy euh, di fàttali. alors est-ce que ay entreprises américaines euh, bëri nañu ci Sénégal nañu ko gisee tey ak France. waaw entreprises américaines yi bëri nañ fi mais nag xam nga aussi duñu ko mën a méngale ak entreprise bu France parce que France euh, suñu diggante ak ñoom. dafa yàgg dafa cosaan la dafa am loo xam ne vraiment dañ ko seq affaire yàgg na sax esclavage colonisation ñun français la ñu nag ñoom ñoom ñoo ñu yàgg soutenir ñoo ñu yàgg encadré donc seen entreprise yi ñoo ci entreprise donc euh, voilà ñoom xëy na liñ am ci ay entreprise américain am kuñ ko mais en tout cas américain ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw ak doole te xam naa ne dinañ ci dinañ yaatu parce que euh, ak li nga xam ne pétrole bi ñëw na ak gaz bi ñëpp ak ñuy cherché léegi parce que Sénégal dafay am intérêt géostratégique géopolitique maanaam àddina bi yëpp léegi dañuy teg bët dañuy xool américain te ñun ñoo jàkkaarloo océan Atlantique rek moo ñu séparé donc ñoom duñu bàyyi ñeneen fi ñeneen di ñëw te ñoom duñu fi ñëw mm. foog ñu foog ñu ñëw seen tànk aussi pour wane ne ñu ngi fii te ñoom tamit affaire bi Sénégal intéressé na war nañ fi am place bi demee noonu donc yooyu yëpp aussi foog nit ñi euh, bàyyi ci xel donc euh, d'ailleurs sax am nañu accord boo xam ne ci affaire courant bi dinañ ko signé pour gaz feeñ fi ñu mën ko jëfandikoo defar courant pour waa Sénégal loolu aussi lu mat a xel lu am importance lu am njëriñ la. parce courant mooy tabax industrie mooy tabax. comme mooy def développement bu dëkk. Euh, professeur Beye yaa ngi bokk ci euh, parti socialiste euh, nekk euh, ci secrétariat national bi euh, bokk itam tey ci magi parti bi bu ñu ko mënee waxee noonu kon di nga ñu mën a xëy ma xëy na xaymaal diggante Sénégal ak Amérique ci jamonoy nguuru socialiste bi fi Abdoulaye Wade nekkee ak Macky Sall ndax dafa dem kanam wala am na lu ci wàññeeku. ñuy wax ne américain yi su suñu diggante ak ñoom ñu ngi jëm ñu ngi gën a jëm kanam parce que aussi américain yi ñoom euh, duñu seet sax ci ay nguur ci peuple bi set vraiment peuple américain ak peuple sénégalais ñoom noonu la ñuy ay relation xëy na nag gouvernement yi sax am na gouvernement yoo xam ne bu ñu do doxalee na ko na naka sudul noonu dana tax ñoom euh, seen loxo dana wàññeeku mais bi fi Senghor nekkee ba léegi booy xool ba xool sax euh, changement bu bari bari amul ci diggante régime yi fi jaar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall bu ñu fàtte ne Senghor amoon relation ak John Kennedy xam nga Kennedy sax ndax bo bon yàlla daf ko euh, teel a moo tax euh, yàggul ci nguur gi xëy na bu fa toogoon dina ñëw Sénégal. Hmm. bon euh, Abdou Diouf bi mu ñëwee recevoir na Bill Clinton su ma jumulee. Hmm. junior. Hmm. Macky Sall recevoir na Obama. alors du dëkk yëpp nag ñooy recevoir président États-Unis hmm. loolu loolu aussi foog ñu xam ko pour wane ne vraiment Sénégal am na fu ko teg waaw loolu loolu loolu moo tax bàyyi xel te aussi Mike Pompeo ñëw na Afrique ñetti dëkk dong lay visité Sénégal Angola Éthiopie hmm. te comme ni la koy waxee sànq ci doon dafa ko teg hmm. Éthiopie seen premier moo jël prix Nobel de la paix mi ngi dox diggante jàmm mi ngi dox jàmm diggante ak Érythrée nga xam ne ñaari dëkk yu taxaw da jamono yi sax ba nekk benn dëkk bu hmm. njëkk mais rayante bu métti métti amul seen diggante moom mu ñëw vraiment dox na fa jàmm dëkk baa ngi commencé jëm kanam même ci Africom hmm. mu ñëw Sénégal mu Sénégal seen seen économie mi ngi jëm kanam mi ngi mi ngi commencé di dëgër. Hmm. Euh, Macky Sall a ngi koy bu amoon ay jafe-jafe seen croissance mi ngi tourné ci juróom benn poñ wala juróom-ñaari poñ ci téeméer bu ne boo jël. xam nga euh, démocratie sax na fi droit de l'homme tamit sax na fi. Mm-hmm. ñu ne Angola Angola régime marxiste moo fa nekkoon. Mm-hmm. mais Lourenço bi fa nekk jamono yi gis ne aussi mi ngi góorgóorlu mi ngi eh, bu dëgër mi ngi indi transparence doomu président bu mu wutu sax dafa nekkoon de santas doomu bu jigéen te ñu doon ko wooyee jigéen ji ëpp alal ci Afrique milliardaire la. Mm-hmm. Eh, dañ ko sax eh, bëgg topp ci yoon. pour xaalis bi amoon mu mu dellusi ko donc loolu américains bu ñu jëlee ñetti dëkk yooyu ñëw dañuy wan ne ñetti dëkk yooyu dañ leen di encouragé mhm. leen wan ne ngi ci yoon continuer leen mhm. góorgóorlu leen ba pare wan yeneen dëkk yi xam ne demuñu seeti leen bu ngeen bëggee ñu seeti leen da def li ñett dëkk yi da ngeen mhm. parce que américains yi ñoom droit de l'homme la ñu jiital bonne gouvernance ak euh, vraiment liggéey. sànq ñu euh, sàkku xayma bi ci diggante xëy na ñetti nguur yi fi jot a jaar mooy Donald Trump bi mu ñëwee ñu bari dañu jàppoon ne jëflante geeg Afrique wala ndimbal lim fi daan li fi Amérique daan dugal dana ko wàññi ndax euh, xëy na xët-xët gi mu ñëwee woon ak ci aju ndax kon tey mën nañoo jàpp ne Trump malgré loolu yépp wàññiwul dara ci diggante Afrique ak États-Unis surtout Sénégal. xam nga Trump moom am na ñu bari ñu wax ne. accident la quoi waroo sax yi gis ñëw ci nguur gi accident la xaalis xaalis rek tax parce que dafa am xaalis mi milliardaire la moom li ko intéressé bu njëkk mooy ay télé réalité mooy am ay buzz comme ni xale yi di wax léegi xam nga moom xam mu musul xalaat affaire def politique mais ak xaalisam yàlla def na bon mu ñoo nekk président ñu mm. commencé nekk président rek comme que tàmmul affaire politique xamul Euh, deful ni ñoom euh, kii daan def ay Bush. Mm-hmm. wala ñoom a Obama nga xam ne day yàgg ci def politique. Mm-hmm. nekk ay gouverneur yàgg ci màgg ci ak yooyu du dëgg. xam ne yëf yi euh, xam ne yëf yi <laughs> du noonu du yëf caaxaan. bon Bush de dem nañu sax ba dañuy tiit ci affaire ay guerre mondiale nekk affaire yu kenn xamul. Mm-hmm. digganteem ak Russie digganteeg Chinois yi digganteem ak Corée du Nord. nit ñi xaw nañu jaaxle mais ba mu demee ba mu yàgg ay weer yi passé at yi passé. dafa mel ni léegi sol na versu président Amérique comme ni ko ñëpp daan sole léegi mi ngi dellu si mi ngi jubanti mi ngi xam ne daal fa mu jëmoon du fu baax léegi mi ngi def vraiment li nga xam ne loolu la président war a def. Mhm. xam xëy aussi xëy na li mu ci élection moo tax mu koy def pour jéem a rassurer nit en tout cas loolu la wone mooy doon laaj bu mujj bi États-Unis wax nga ko daf ñuy dimbali sax du ñu lebal daf ñuy euh, jox ndimbal loo xam ne. ñuy may ko fay ñuy may ak yu ci aju yëpp waaye xëy na itam ñàkkul ñoom am na loo xam ne ñu ngi koy amee ci jëflante googu ak euh, réew mu mel ni Sénégal lan la États-Unis justement di gagné ci lii mu sekk ñun yëpp. ah waaw mooy li wax rek xam nga nag Euh, réew yi amuñu xarit. Mm. intérêt rek dañu am fu seen intérêt nekk rek la ñuy dem. Mm. donc Amérique bu Sénégal di gagné ci joko bi ñu jokkoo ak ñoom xaritoo bi ñoom tamit dinañ ci gagné. Mm. parce que wax naa la bi ñu ñëw léegi il a rek seen ay hommes d'affaires xam ñu ne Sénégal am na pétrole Sénégal am na gaz donc Sénégal dafa nekk léegi enjeu géostratégique ak géopolitique loo xam ne dañuy dañ koy bët ndax yu bees yooyu fi feeñ te ñu nag Amérique géej gi rek ñu euh, kii ko océan Atlantique donc da xam na leen jege. mën mm-hmm. naa ko waxee noonu. Mm-hmm. ba pare aussi ñoom bu ñu fàtte ne quand euh, ci affaire militaire affaire armée am nañu seen base yu AFRICOM AFRICOM mooy commandement américain en Afrique. xaw ma sax seen siège nekkul Dakar mais am nañu accord yu ñu signé ak ñun ne ëllëg bu ñu suñu base militaire yi dañ leen ko jox. Mm-hmm. te xam nañu Dakar dafa nekk point stratégique. xam nga pour euh, défendre seen intérêt en Afrique seen intérêt dans l'Atlantique seen intérêt même en Europe euh, am euh, di utiliser base yi nekk Sénégal mm-hmm. daf leen di amal njëriñ donc ñoom duñ ci perte ah, bu ñu dañ ci gis seen intérêt mm-hmm. loolu moom ñoom aussi comme ni ko les pays yi nekk Europe di defee tamit dimbali dëkk yi néew doole yi day tax aussi xëy na ñooñu duñu jéem a gàddaay di leen fekk si seen dëkk. Mhm. moom la ñuy wax ay migration. waaw xam nga yooyu yëpp aussi dañ ko war a bàyyi si xel di ko suuraale quand même c'est important. mais daal ñoom dañ ci perte dañ ci gis seen bopp aussi. Mm-hmm. waaw relation yi mooy mooy ñuy def ay partenariat accord gagnant gagnant mm-hmm. jërëjëf professeur Ousmane Beye amoon nañu mbégte lool dalal la euh, tey ñu fàttali ni yow professeur science économique nga waaye itam yaa ngi bokk ci euh, parti socialiste euh, surtout ci secrétariat national bi ñu ngi lay sant bu baax